voilà mbokk yi ñi ngi ak euh, Bassirou Mboup coordonnateur COJER bu Touba di kuréel bi nga xamante ne moo tënk ndaw yi yëngu si wàllu politique si alliance pour la pour la république fii si Touba ñu fas yéene waxtaan ak moom nag euh, si ay ponk yu bari ñeel actualité politique Bassirou ñu ngi lay nuyu. maa lay nuyu baax Babacar euh, di la fay di nuyu sa mbokki internet yi nga xam ne ñooñu ñu nar a seetaan. voilà fi ñuy tàmbalee juste mooy luy ay di jàmbat seen benn ñooñ nekk si parti bii di APR mu yoo si Cheikh Fall euh, moom sax euh, bokk na si kuréelu ndaw yi bu ñu sukkandikoo si momoom yëkkati na kàddu di di défendre euh, Ousmane Sonko mi nga xamante ni moom dafa li ko dal du kenn ku dul njiitu réew mi ak ñamu àndal ñoo ko teg ngir complot tey lu ne bu amee jóge si yéen fii suba est-ce que du décrédibiliser maanaam seen parti rawatina yéen ndaw yi. waaw yaakaar naa li tax ma ñëw fii nag loolu la en tant que coordinateur de la COSER. pour ñëw leeral ndax jàpp naa ne nit ku ne am nga droit far fa nga far mais li bon nag mooy di bu loo xam ne doonoo ko di wax ne nangam laa may wax ci turu sàngam Cheikh fal bokkul ci COSER même bu fekkee ne am na ñoo xam ne nee nañ ci parti bi la bokk mais man mosumaa gis fu mu yëngoo ci parti bi mosumaa gis activité ci parti bi kon bu jàppee ne ci parti bi la bokk man jëpp mën ne ci parti bi la bokk te li may wax lu leer la amul benn structure ndaw ci parti bi xam naa ko bu baax a baax mais ci conseil communal de la SONES laa ko xamee mais vraiment bu dee dëgg rek tax may wax benn structure ndaw bu nekk ci parti boo xam ne mos naa caa gis Cheikh Fall bokk ci wala mu yëngu ci wala mu kon yaakaar naa bu dee wax ci turam lay wax te ko neexee wax xalaatam mais jàpp naa ne bu mu tooñ waa APR nag ñun waa APR ñun ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw président de la république nekk ci structure bi nekk ci parti bi di ko liggéeyal ñun. président la ñu àndal te politique bi mu tracé ci lañ nekk ñun tëluñu sax ay affaire de Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu demee ci ay salon moom ak benn xale bu jigéen Adji bañ séq fa lañ fay séq moo xam dañ ko séq moo xam séquñu ko moo xam violé na ko moo xam a dem wuy ji nekku ci yoonu suñu parti wu ci bu bëggee bës nag wala mu bëgg ko xam te kenn xamu ko na dem wuti ko mais du fii la exercer bës dafa indi ay firnde euh, ni moom participé na si te ma waroon a saytu également këyit yi benn tamit élection yi passé deux mille dix neuf moom Cheikh Fall euh, moo nekkoon euh, foofu si Darou Khoudoss doon contrôler mbir kon yooyu doy na comme indice que ni moom bokk na si parti bi wala. waaw man bu ñu mën a ci parti bi mën na cee bokk mais dama xaw ma ko te it bi ma laajee information yàlla seere na démb ñu bare bare dañ ma wax ne ma kii ci parti bi la bokk képp ku bokk ci parti nag ñuy nattable ndax ci parti nga bokk jàpp naa ne war ngaa seetaat sa bopp structure ndaw yi laa wax amul benn structure ndaw. man foofu laa xam nga xam ne am naa fa responsabilité bu ma sëkk tey contrôlé naa ñëpp amul benn structure xam ne mos na faa ñëw activité wala mu mu figuré ci benn liste boo xam ne lu ndaw ñi mos a def la loolu moom c'est difficile kii konk bu dee na nag bokk na ci parti bi parti moom yaatu na nit mën naa nekk fële sax taxaw ñëw ne ci parti bi laa bokkoon doon naa ànd ak nit élection dina am benn waaye ñëw ci parti bi xamoo lu ko fi indi mën naa am intérêt moo ko fi indi woon wala wala wala wala loolu lépp affaire am la mais ñun toppatoo wuñ ko en tout cas ñun li ñu concerné mooy suñu parti ak ndaw ñi ndaw la ni ndaw la bi ma ko gisee xam naa ne ndaw la xam naa ko baax conseil communal de la jeunesse la bokk ndaw la nag te fekkee amul benn ndaw boo xam ne ci structure parti ko mën a wax fii la mos a figuré wala yow suñu activité yépp yaa koy yaa koy couvrir li ma lay wax même bu la waxee loolu yow tey waroo woon ko sax xam di ko laaj ndax affaire nga bokkoon bu fekkoon bokk na affaire te doon li mu doon dëgg yaakaar naa doonul koy laaj di wax ne Sonko la pourtant bañ bokkee ci parti ba léegi li muy wax depuis deux mille dix bii nii deux mille bii la la bokk ci affaire dem ci élection lu tax mosul wu génn wax benn yoon boo xam ne lu jëriñ parti bi loo mos a gis wala loo mos muy seet recherche pour positionné wu ci ci ci ci Pastef bu bëggee dafa bëgg a positionné ci Pastef na dem positionné te mu may jàmm ñun ñoo jàmm te politique président de la république nekk ci lañ nekk dafa identifié ni am na tamit ñu muy àndal di liggéey yu si mel ñoom Abdou ba pare wax ni nag bokkoon na également zone Daaru Xudoos xam nga yooyu rek day na comme comme ay état Abdou Niane de moom Abdou Niane yow boo ko doon interview jërul sax mu ànd APR laa bokk Abdou bu doon yow moom nga dalal fii di ko interview di wax yi daal xam nga kañ la ma doon ñor Abdou Niane wax moom bu yow boo tegoon fii di ko interview yow sa bopp doo ko laaj ndax Abdou Niane nga bokk wala bokkoo APR

parti association la euh, maanaam kii ki soogay ñëw ka fa yàgg ak am mbooloo mbooloo ñëpp ñoo ci bokk. non waxuma ko ab ku yàgg ko am mbooloo dama ne parti ku ca nekk. Mm-hmm. bokk ca parti ba di def activité active ñu xam ne yow mi militant nga wala boog di moins ngay tuddoo responsable au moins doo waroo doon ku ñuy laajte laa la wax te dama ne bu fekkee ne ci parti bi la bokk wëlewu ko. benn pare ne mu ni mille personnes. ku ku ku jox élection di koy muy muy muy saytu centre bi gën a mag si kon kooku da ngay natable bokkam wala. waaw xam nga li mu lay wax. yow li ngay wax dama ne la. Hmm. lu no du lum la wax benn responsable la àndal mën na am responsable boobu moo àndal moo ko ñor kooku la doon jàppale mais parti bi ñoru ko ndax bu ko parti bi ñoroon waa parti bi dinañ ko xam responsable ba muy jàppale nag xam na ko mën na am responsable ba muy jàppale xam na ko kan moo ko yónni nag ban intérêt la am ci Ousmane Sonko loolu moom affaire am la moom ak ko ko yónni wala moom ak lu ak ak ku mu xam en tout cas li leer mooy man structure ndaw yi la wax au nom la COJER. au niveau du département sous contrôle de notre coordinateur Sëñ Bakary au nom de la commune de Touba. Cheikh Fall amul benn benn activité bu conseiller mos a def wala benn amul ci benn liste conseiller boo ko mos a gis wala nga mos koo taxaw ba ñu xam ne kii ci parti bi la bokk wala def na dara ci ndaw ñi pour ndaw ñi mos koo gis. bokk naa moom ay réunion mais au niveau du conseil communal de la jeunesse mais au niveau de la COSER. ci biir Touba amul kenn ku mës a gis fenn fu ñu mës a def activité sax mu teew fa. kon boobu parti bi la bokk day nax boppam. fi tournée yi ngeen doon def di dem seeti kilifa yi jeunes yi doon ko def dañuy demoon quelques leaders am na foo xam te tase ngeen fa lu si mel ni kër laaj àndu si la ak tiit tase ngeen fa si tournée yooyu. noonu ngeen doon def tournée. mooy daa ngeen def yéen ay tournée yéen jeunesse bi di dem wër les responsables mais nañ ko mujj arrêté quoi ndax vous vous rappelez si ginnaaw tuuti yàlla de la deux ans. mu daan ànd si délégation yi. man daal li wér mooy li ma xam mooy structure jeunesse bi nga xam ne euh, xam naa ko te xam naa parti bi. Mhm. wallaahi naa si nee na ci ci élection la àndoon ak benn responsable di campagne depuis élection ba léegi amul benn manifestation parti boo xam ne def nañ ko. man ma gis ko kooku noonu. léegi kon jàpp naa bu nee ci parti bi laa bokk dafa bëgg li muy wax am bës ñu ne am na ko bokk APR def nangam mais nag yooyu du jàll. waaw léegi léegi par exemple moom li mu wax dans le fond njiitu réew mi. Euh, li ko daloon li daloon maître Abdoulaye Wade 2012 moom mi ngi koy gete maanaam mën na ko dal euh, si atum 2021 bi ndax li ndax dëgër comme bu ñu sukkandiku si ay kàddoom wala boo ko salfaañi àq ak yelleef doomu aadama dem na sa ba décrédibiliser en fait la justice euh, sénégalaise si taxawaay bi mu am si mbirum Sonko tey yow ban réponse nga si apporté en tant que coordinateur chef ma ko de fond la quoi ça ce n'est plus mon principe ñu jëlee ko fee mais bañ a commenté moom ay waxam moom ah. li ma ñor ci tontu ko mooy ah. lu mu wax ay waxam moo xam moom la engagé mais bu mu ñëw di wax ne ci APR la bokk wala ci COSER la bokk bu bokkoo ci APR tamit dafa am lu ko ñoroon mu nekk te kon ba mu ca jeexee la ba mu paree la ca pare mais COSER moom mu si ca bokk mu sa bokk ci benn structure ndaw. pourtant moom nee na mais bu parti boo ca bokkee parti daa am lu cay boole nit. mais parti doo taxaw rek naan ci parti bi laa bokk mi ngi mel ne ngeen sañ benn waaye fii mu ne la ci parti bi laa bokk da koy justifier ndaw la ñun ñooy ay moromam ñun ñi ay moromam amul fenn fu mën a justifier leen ci lii ci gis nañ ko ci activité ndaw yi ñu mos a def wala mu taxaw teewe benn réunion ndaw boo xam ne ndaw yi mos nañ ko def kon bu nee ci parti bi da ko neex mais li nga wax man euh, président de la république Sénégal yi dañ ko war a sant delloo ko ndax yaakaar naa fii mu toll depuis indépendance ba léegi amuñu président boo xam ne ak si àggal na fi Sénégal képp koo xam ne nag da ngay ja da jaawale li nga xam ne moo xewoon deux mille deux mille xew tey jàpp naa ne xamoo lan mooy politique. deux mille onze Abdoulaye Wade mandat malgré troisième mandat bañ forcé sax ñi fi nekk di wax di coow yëpp Abdoulaye Wade def na troisième mandat def na candidat dañ ne woon candidat Abdoulaye Wade du jàll li fi xew malgré yaa onze morts ak coow li fi mën a am Abdoulaye Wade doon na candidat projet bu mu bëggoon indi moom la ay nit doon jël di ko bañ lii nag benn cas la boo xam ne dafa am nit ku jiiñ benn nit viol di ñuy ñaari citoyen sénégalais loolu jàpp naa ne képp koo xam da nga koy bëgg bëggal politique da ngay wër bës yoonu politique nekku ci yoonu président wax na ko d'abord mu leer léegi mu nekk ci rajo yi di ñu fennal ak di ñu kàcceel di wax ay wax yoo xam ne sa intérêt bopp moo tax nga koy wax ku ko fi wax say moroom yi ñoo génn boo fenee ñu ne la da ngay fenn boo kàccee ñu ne yoonu nekku ci problème Ousmane Ousmane Sonko moom moo kenn yóbbu ko ca sono ba moom moo fa dem di bës lu ne ndiggam day metti te li mu wax yépp boo ko ay incohérents yoo xam ne dara du ci dëgg ne doon dem di faju ci salon ba ñu ne ko deux cent mille amul fenn ci ko ñuy defee massage